Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tout monde. chacun. J'ai l'honneur et le plus grand plaisir d'être là au rendez-vous comme vous les aimez

à travers la Kadiom TV ñi nga xam ne ñoo nekk si diaspora bi di ñu bàyyi xel ñoom it ñu ngi leen jaax baax a baax di kontaan ci ñoom waaye nekk di liggéey ñi nga xamante ne ñoo nekk samay xarit ñu nekk fii ah ci diwaanu Kaolack a baax aw ma seen fay kontaan a baax si ñi nga xamante ah, chaque semaine ah, dañu ñu topp seen émission saveur matinale di leen di jaax bu baax a baax a baax di kontaan ci ñoom waaye tamit di jaax kilifa aada yi kilifa diine yi di sàkku su ñoom ñaan saa su ne te leen ñaanal ñi nga xam ne tamit ñoo tëddee ci hôpital ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla fëgg bi loolu tamit dafay nekk lu baax waaye ñi nga xam ne tamit ñoom la caabi féetee ginnaaw ñu ngi leen di ñaanal ah ñu jëlee yàlla jëlee leen foofu ba delloo leen seen njaboot waaye nag di ziar tous les corps de métier xam nga ne euh, Sénégal dóor rek la xam moo tax nag corps de métier yëpp maa ngi leen di ziar bu baax a baax di leen wax na nodd bu da ko dikk baam yendoo teng baam dafa daan wax naan ku yàgg ci teen faak baak fekk la fa di leen ziar bu baax a baax di kontaan si ñoom waaye tamit nag di ziar Sénégal war nga këpp ndax Sénégal pays ni moom ngeen yeewoo yàlla ngeen ko yendoo daal di ko fanaanoo jàmm jooju nga xam si lañ leen fekk yalla nañ ci ànd ak yéen ah, di leen ziar bu baax en tout cas amuñ seen fay kontaan nañ bu baax a baax di leen ziaral waye tay nak xam nga ne que lundi nga dinañ ànd ak yéen seen rubrique astuce beauté xam nga ne que dinaa ci ànd ak nga xamanteni mo nek la sister ah la sister Ara donc nak muy ndil ma astuce beauté li nga xamanteni moy tendance xam nga ne que moment bi dañoo nek ci tàngoor li nga xamne moy mooy tendance su tàngoor bi dinañ ci ànd ak moom waaye nag dinañ dem ak yeen seen buzz day en ligne donc nak li moy li nga xamne moy suñu programme lundi donc seen émission saveur matinale mbokk internet yi donc nak ni lañuy def très très rapidement dem seeti ben actualité du jour donc nak gis nañ que week-end bi euh, le monsieur Pape Demba Bité président nek le directeur général de Sénélec donc nak def na ay djégo yu doy war ci diwanu Kaolack Nangan, donc def ben tourné bo xamanteni ni def na ci ay dons alimentaires donc a ah, euh, ki nga xamanteni mo nek le gouverneur recevoir woon na ko ah, euh, li nga xamne moy le samedi donc nak euh, mu def ay dons yo xamanteni ni yu jégg doy la loo xamante ni Sénégal yëpp wala Kaolack yëpp ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy apprécier di diko diko diko gërëm bu baax a baax waaye nag si dimanche bi ah, demoon na fële seeti won ic yi nga xamanteni ñom ño nek ci Kaolack def nawetaan vert donc nak jox leen ku nek ay plantation pour ñu planter donc nak saxal sen koñ ndax ta garab lu baax la donc nak nekk loo xamante gis nañ ko waaye ASC bu nek tamit amna ben remise bo xamné defal na la donc mu nek lo xamanteni ni def na ci Kaolack donc jeunesse bi yëpp diko apprécier mbokk internet yi xam naa ne que amoon nañ ci ay vidéo yo xamanteni amon nañ ko ci jëli won nañ ko fofu ci Kabatoki ak Kaolack lepp li nga xamanteni amna fa ci ci événement bi nga xamné mo nek nekk week-end bi passé donc nak mom lañuy andak ànd ak yéen di ànd suñu réalisateur dem sétani ko ñëwaat légui légui ci plateau bi Monsieur le Président de l'ORCAV, Monsieur le Président de l'ODECAV, rappelez vos collègues, Monsieur Thioune, suñu compagnonnage yàgg na depuis l'éclairage du stade Lamine Gueye parrainage ak activité yi ñu def oh. yëpp mais yaakaar naa ne tey ah, histoire retiendra que nous venons de poser un nouveau jalon dans le cadre de cette activité yi ñu def yëpp dañ ne éclairage stade bi moo si gën a mais bii ñu initié tey c' est pour marquer définitivement l'histoire parce que bu ñu sampee garab ay garab yoo xam ne ñu ngi leen di voilà merci beaucoup retour sur notre plateau gis ngeen que noonu moom euh, le monsieur Pape Demba Donc, on donc nag euh, mu nekk président du euh, mouvement Crème, donc on def ay jéego Yo xamante Yo am solo la donc mu nek lo xamante muy reboisement mu nek lo xamante ndaysan ndeysaan yaakaar que Sénégal yëpp apprécier nañ liggéey bobu nga xamante mom la def donc waaye tamit seeti kii bi navetaan yi nga xamante ñomit xam nga ren mbass mi mo len laal ba navetaan amutu donc def nañu tamit lu extraordinaire euh, Fofu nga xamanteni mo nek nekk ak euh, le président euh, Pape Demba Bitèye donc nak lu nek lo xamanteni lu extraordinaire la donc lo xamanteni ce geste à saluer la donc nak wax na war nañ ko gërëm bu baax a baax ñu ngi lay jaajeufal bu baax baax ndax tamit ñu nit ay doomu Kaolack lañ ah ay doomu Kaolack lañ donc suñu gisee un Kaolack wa di def ben geste bo xamanteni ni na ñun ñëpp ay doomu Kaolack kon donc nga défal ñuko kon gàcce ngalama donc chapeau à vous monsieur Pape Demba Bitèye donc ñu ngi lay jaar baax baax

ndeysaan ah, tarkal macha allah moom la Sitara moom lay dalal suma plateau ndeysaan ah sama rakk ji ndeysaan moom nag dafa mun sànce hmm. looloo ma neex ci moom ah Sitara. jeex naa la naka sa matinal. sant yàlla bu baax mais ni nga def si lënd bi. waaw gis nga nii laa def. Papa Lu ma fi jaar. Papa Lu ma jaar fii. def na lu doy waar. waaw gis nga acca nuyu la mbokk internet yi. waaw salaamaaleykum mbokk internet yi. maa ngi leen nuyu bu baax a baax. di leen jaajëfal bu baax baax di jaajëfal ñi nga xamante ñoo ñuy bàyyi xel tous les lundis xam nga ne nag chaque lundi di Diabase hmm. ah, damay indi li nga xamante ne mooy beauté astuce beauté ne su ma beauté rek ah, damay indi taaru ah, ba tax na rek fa jaar nuyu sama yaay jooju mama Khady hmm. di ko nuyu bu baax baax di leen wax naan ñeneen seen biir émission saveur matinale ngeen am ceeg Diabase le docteur des cœurs ak hmm. Sista Ara la Nova Diabase tey lu doy waar laay tey lu doy waar nga indi bala nga ñëw foofu dafa am loo xam dafa ma jaaxal yéen astuce beauté lu tax ngeen emal ko ci jigéen ñi beauté góor góor warul beauté non mais ñi war ngeen kaas war ngeen kaas mais góor góor bëgg lu baax ñun ñoo gën a soxla lu baax ay jigéen lañ fu ñu toll dañoo war <laughs> eh, gis ngeen ko noonu moom euh, la Sitara ndeysaan moom nee naa nee naa la mooy gàtt bëri solo dafa bëri solo nag. da ngaa bëri solo. ii mooy sama ñaareelu tur. <laughs> aja lan nga ñu indil tey comme tendance saa suus ba tey. waaw tey dañoo demoon fi nga xamante ni mooy centre commercial bu marché Kaolack. Mhm. Euh, seeti benn euh, femme mhm. ñu gën koo xam ci bijou. bijou nekk femme boo xamante ne ni day defar li nga xamante ne mooy ay létt. Mhm. day karaw di teg li nga xam ne mooy ay greffage euh, tey ñu demoon seeti ko waaye laata boobu DJ Balzi dañuy dem léegi-léegi xooli euh, Bijou lan la ñu indil euh, Bijou moo ñu wax lu ñu indil tey chasseuse beauté donc dañu ànd ak suñu réalisateur Abdoulaye Barry mu daal di ñu tegal image boobu nga xam ne moom lañ jëli woon ci Bijou ah ñi nga xamante ni moo nekk seen rubrique astuce beauté avant tout leen di di nuyu tamit wa tajam TV aussi sen liguey bi rafet na ñëpp gis nañ ko macha allah di nuyu waa Kaolack ndangaan di nuyu tamit sama clientèle yi wa liguey bi nak euh, mu ngi ni rek tendance bi ak tangor bi ku nekk xam la fiñ tonni ci tangor lañ nekk tangor bi gaay yi dañuy def ay mèche lâché comme ñu gis né ak ay tresse wa tresse yu léger pour tangor dañ leena sonal wala xana di jema def euh, lu nit ñi di wax rek moytu bu baaxa baaxa baax jël masque yi tak jël gel yi di suñu téré ñun non lañuy def en général ku ci dugg la sa gel sa paré tak sa masque wa lool lañuy utiliser dal muy tu dal yalla nak mom mo yore yépp mais dañuy tu bu baaxa ba wa xana di la remercier di remercier tamit sama fidèle clientèle yi nga xamantene bañ jappé ba tay baye wuñu di remercier tamit sama élève yi ñaaw li nga xamantene dañuy door góorgóorlu di liggéey bu baaxa baaxa ba wa baax remercier tamit sama wajur bu baax wa sama papa sama yaye maa ngi remercier ñëpp bu baax ak yéen aussi dina remercier bu baax a baax. voilà merci donc retour sur plateau bi gis ngeen ko nonu gis nañu bu bisu lu ñu indil donc nak mu nek lo xamanteni lu extraordinaire mi ngi wax ci létt tangor bi létt létt bi gëna baax waaw ma ñew ci létt sa DJ Balzi bisu dañoo dem fekk ko mu respecter li nga xamanteni moy mooy barrière mesure mhm. euh, parce que mesure de barrière mesure de barrière autant pour moi <laughs> non damaa xiif ndekki mbas bee la tiital damaa xiif damaa ndekki gud moo <laughs> kon naa la defal dose <laughs> d'accord ñu dem fekk bisu mhm. respecter lepp li nga xamanteni moy mooy mesure yi mhm. euh, bisu dem fekk ay élèves am de respecté li nga xamante mooy mesure yi ñoom ñëpp ñu takk ay masque fekk fa li nga xamante mooy gel yi balaa ngaa ñëw wax ak moom da lay jox li nga xamante mooy gel bi nga utiliser ko laal joxaale la tamit masque na laal jox keneen laal jox keneen mu laal franchement mu acte bu nice waaye tamit dem nañ fekk muy def ay tresses yu nice mu gën neex ci li nga xamante mooy tàngoor bi ndax fekk nañ ko muy létt benn femme ay tresses yu tresses yu oyof parce que mu ngi koy wax ci biir vidéo bi mu ngi wax ne que lii moo tendance ci tàngoor bi nga ay treize yokk say per yu ndaw parce que xam nga Kaolack dafa tàng mhm. te instant yi xam nga ne loolu moo gën ci tàngoor bi moo gën ci tàngoor ah, ba tax na daal euh, loolu moo nekkoon li nga xamante ne ni euh, mooy astuce beauté bi nga xamante ne moom laa la indiloon tey mhm. waaye tamit won nañu benn euh, greffage boo xamante ne ni mhm. coupe carré la coupe carré coupe carré baax torop tamit ci tàngoor yi xam nga xale jigéen dañoo bëgg fashion bëgg ay xeetu cheveux waaye tamit tàngoor bi Kaolack cheveux coupe carré moo ci gën wala figé gis nga bijou loolu la ñu indiloon bijou moom la ñu indiloon waaye yooyu tey def nga astuce beauté bu doy waa tey sa make make-up jaar na yoon sa grefa jaar na yoon jël nga say verre say say verre la nga jeul ñaf ko ci kaw ñaf xam nga li ñaan ñaf li moy ñaf non dama ko paré dang ko paré parce almaami chaque jour mu almaami la fi bu nga sonn nee ma neena na ma sa assist bu dëgg il ngay bu waale ñi ñi xam notre PDG ñu ngi koy saluer de passage di ko ziar baax baax di contane mom ah donc waaye nak euh, damay daal di nuyu ñi nga xam ne ño japp ci combat bi wa Daaru salam voyage dar kala ñi nga xamanteni ni neena la bu dee voyage nga bëgg tukki rek ñoom ñoo ci fekk baax oto yi kiling yoo xamante ni ñoom lañ yor bu dee location voiture oto boo munti bëgg qualité boo ci bëgg daaru salaam voyage moo ci fekk baax na chaque jour ma ne la làbbalim fas taxuta fasara fasa nga ca kanam mm-hmm. daaru salaam law na leen nee naa la daaru salaam mooy dukki dukki ak dangi dangi yépp ay xeetu xel waaye mes lañ jaaxal mes nag mooy daaru salaam voyage mm-hmm. donc nag ñu ngi fii ci cœur de ville bu Kaolack jàkkaarloog manège bi seen numéro téléphone nekk 77 254 99 83 wala ngeen woo leen ci 33

te mu taga tembe moo xam ngay ut visa mu tëla billet d'avion yi en ah Darou Salam voyage si qualité bu baax bu doy waar bu mucc ayib li ma gën a neex nag si Darou Salam mooy soo fa ñëwee xale yi nga fay fekk dalal bi ñu lay dalal waaw ñoom elles son tellement souriantes dinañ la réel kafal la macha allah dalal la tutagal la da liggéeyal la liggéey bu mucc ay boo xamante saa yoo ñëwaatee da nga jaar si ñoom lépp loo bëgg ci qualité oto pour louer Daaru Salaam voyage ñoo ci fekk baax te emuñ foofu yow mi nga xam ne da ngaa jugee bitim réew ñëw dallu si noppalu amoo fu baax qualité bu baax bi moo dar Daaru Salaam voyage non Daaru Salaam voyage man gàcce ngaalaama ah gàcce ngaalaama ñoom ñoo a assurance de toute branche mhm. donc nag de Salaam voyage ñu ngi fii ci cœur de ville bu Kaolack waaye kenn du tamit sama waaja Barham confection. non kenn du la nga liggéey bi liggéey ci màggal gi. gis naa ko nga t-shirt macha allah def na lu doy waar. defar ay t-shirt yoo xamante ni ay lakkos yoo xamante ni lépp a nga ci. maam Saliou yaa ngi ca Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yaa nga fa. Mhm. nee naa la nag maam Cheikh Ahmadou Khadim Rasoul mhm. moo waxoon ne mhm. Saliou way sa doom man maay bàyyam donc nag kon gaaw leen gaaw ñëw wuy si ki nga xam ne moom moo nekk. Barham confection ah. mu ne mu këbëroo sa dugub eh, xam nga li ma ci gën a neex. ndaamal daaru <laughs> Cerno Birahim Ndaamal Daaru mais waajoojoo taaru cey seex boobu macha allah tarkalla taaru na mbégte mi ah sëñ mun ndaxaa nga ci yooyu yaay xool bu la neex rek loo choisir donc nga def ko ci donc ci daaru sa abordable voilà donc mooy loolu voilà merci beaucoup donc loolu mom euh, Barham Barxam confection donc la ah, Barxam confection nak nek fi di def lepp luy infographe sérigraphe donc ñëwul ci Barxam confection nek le ci cœur de ville bu Kaolack momit en face manège bi donc numéro téléphone bi gën yomb 77 994 62 81 Barham confection nous sommes jàpp nañ ci combat bi gaay gaay nga xamanteni ñom ñoo bëgg tamit bok si si si émission bi donc nous mu les ay sponsor partenaire gaaw gaaw ak ñun donc nak ci 78 522 07 22 yow mi nga xamante nga bëgg ñu siwala sa produit ba mu daal di siw ndax fii mooy taabalu jaay dañuy jaay rek mu jar fii lu ma fi teg mu jar ndax keroog de waa Daaru Salaam voyage hmm. dañ maa woowoon ne ma um, client yaa ngi na topp leen <laughs> nii la gars yi di range chaque oh, jour du lundi au vendredi ndax kajom kajom ma doy waar kajom ah la télé dans smartphone bayina len fi bu yag en tout cas kontaan na tay bu baakha baax andak yow ngay indil ma sen rubrique castus beauté li nga ma ci indi doyna war trop trop trop trop lan ngay tagoto gaay yi ba lundi incha allah. waaw di jëbal di kontaan na ci yow bu baakha baax sama mhm. mag ju baax ji mhm. waaye tamit di jajeufal ñepp ñi nga xamanteni ne ñooñu doon baye xel mhm. à travers la kadjum TV euh, neena len mang sister Sista Ara chaque lundi rek ni lay def indi len astuce beauté euh, lu bes tax ba tax na rek non lay jaar euh, di len jox di daje ba benen beneen lundi inshallah ak yeneen bagage bagaas ayca merci beaucoup ba beneen lundi ak yeneen i bagage donc moom la ñuy ànd ak euh, moom moom Sistara ak astuce beauté bi nga xamante ni moom lay indi chaque lundi mu nekk lu doy waar ci biir émission saveur matinale ñu dem seetaani benn vidéo ñëwaat léegi léegi ci plateau bi. Kajom TV yegg si na osé yeneen TV online lay closé def job bu osé yaa ngi am Kajom TV online la télé dans votre smartphone Sadam Spreadful. bu Xelal Xel entertainment maa ngi am Kajom TV ci sama application YouTube yéen ñëpp seet leen ko abonné Kajom TV for life

may dalal macha allah taarkàlla ndeysaan sama murit sadix yooyu noonu ndeysaan bambal international Baye Fall bi maa lay ziar bu baax a ah ndeysaan maa ngi koy kontaane bu baax a baax moom jeune transitaire waaye nag kenn du sa jigéen Adama Diop madame Niang talib serigne saliw bi ma ngi lay contane bu baakha baax borom dakaru ndjay transfert bu mag bi ma ngi lay contane bu baakha baax yalla sa jamu yag ma ngi ñew dal sen kaw ci gam ci magal gi donc nak dina ñew ñu magal ba mu saf inshallah rabbi ci carton yalla waye nak ma ngi leen di ñaanal bu baakha baax yalla na leen yalla taxaw bu baakha baax samay xarit ngeen samay andando ngeen eh, samay doomu nday ngeen ma ngi leen di contane bu baakha baax awmu sen fay bamba contane na ci bu baakha baax coucou à vous aussi donc wa maris tamit ma ngi leen di contane baakha baax fallu galas bayu mbeen ma ngi lay ziar baakha baax di contane ci am contentement am mbégte andak ak yéen seen émission bi nga xamante mo nek saveur matinal mbok yéen tax na tii xam naa ne euh, lay jaar daal di tàggatoo ak yéen donc tàggatoo bu dul tàggatoo ba mercredi inshallah allahu rabi waaye laata lolu di jaax bu baax baax ñi nga xamante ñoo ñu doon bàyyi xel à travers le Sénégal et l'international donc nak di ñu bàyyi xel ci Kajom TV di leen kontaanee bu baax a baax di leen wax ne ah lépp li nga xamante am ngeen ko comme produit ngeen war ko siiwal bam egg ci diwaanu Wassa gaaw leen gaaw ñëw jokkook ñun euh, fi ci Kajom TV. TV ngeen woo ñu ci numéro bi ma lay jox 77 994 62 81 dinañ leen siiwale seen produit ba mu daal di egg ci diwaanu wasa donc di ziar baax a baax sama caméraman mm, Abdoulaye Bari di ko kontaane baax a baax réalisateur bi am na almaami Jeeju waaye di kontaan bu baax a baax tamit ñi nga xam ne ñoo jàpp si mbir ba mu egg si fii Amadou Mbaye maa ngi lay kontaane bu baax a baax moom yi donc moom it mu innovation quest la di c'est bu baax baax nga ñu ngi doon xel waye rawatina euh, sama sama sama sama sama jigen ba ndaysan mom euh, Rama Ba ba pour le jeexi ngi lay contane baax di bu di contane ci yeen di joxante ak dig rendez-vous Inshallah, mercredi émission saveur matinale ak rubrique ak merci à toutes et à tous merci infiniment on se rendez-vous mercredi inshallah. ciao ciao bye